sama génn si Pastef da ngay doon dangay ngay nekk si biir parti yi nga nekk si biir parti toog fa nga doon jigéen man je suis ambitieuse je veux vraiment travailler pour ma patrie je veux vraiment participer pour le développement de mon pays si boo ñëwee yow nga am rêve nga bëgg dara mais si façon parti yi nu ñu koy def dans l'ensemble parti yëpp dañ lay brimer dañ lay doo mën a dem en tant que jigéen te ñun jigéen ñi. fii nii système tout le temps da ngay topp si ginnaaw. voilà à un moment donné j'ai dit stop j'ai envie vraiment. Je viens de fêter mes 40 ans. J'ai envie vraiment ce tournant, cette phase qui est très importante pour nous, 2024 ne phase bi bu ñu parce que y a eu le coronavirus qui a été un vrai déclic pour moi. Coronavirus parce que coronavirus bi dafa montré ne ñun nous sommes des nations surtout en Afrique très faibles, très précaires. bu ñu toogee phase bi leneen lu fi xaw xewaat ci àdduna bi parce que c'était une première dans l'univers dara demul d'accord léegi nag ma jóg man j'ai assumé mes responsabilités l'élection présidentielle c'est une phase nga wax ak tournante boo xam ne il faut nga wax ak sénégalais lu leer ñun nag lu tax a jóg yëkkati suñu projet de société parce que ñëwuma jaay sénégalais ni damay defar Sénégal yépp lenn rek moo ma soxal man bindu mm, mm. mooy ne l'homo l'homo sénégalensis mooy nit ki d'accord